Euh, nu ñëw nag tey fii nga xam ne mooy kër sëriñ Bassirou Mbacke Diakhaté euh, sëriñ Bassirou Mbacke Diakhaté nag am ñaari cër cër bu njëkk bi mooy day sët Cheikh Mamadou Lamine Baara di doomu soxna Seynabou euh, Baara Mbacke ñu ngi la koy ziare di ko ñaanal yal na nu yàlla taas ci barkeem te fa mu jëm taseeg waajuram bu baax wa Cheikh Mamadou Lamine Baara xamne da fay jóge bu yagul dara Mbacke ñi ngi la koy jale bu baax a baax jaxate euh ñu ñëwoon rek doon ziare ci bis bi nga xamne sa bésu mam la muy 18 safar nu bëggoon nak nga soññaat ci talibé yi bu baax a baax baax baax baax jaxate aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وخير خدمه ومن تبعه الإحسان إلى يوم الدين سيني بارا ما نلين دي لي باخ باخ باخ لي دولي سمت برام بي لي جولي شيرانت متدى بي موكي جنب أكي صحابا لي فت دي لي سنو طالب أك سنو تانت شي سن جورين كي جاكر كل مو مي خادم الرسول دي لين وقت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دي خملة نرك ni ko sëñ bi waxe woon rek ne bis bii ci la lépp ci la ko amee ndax koo xamante nii bi ngay wàjj dem ci fi ñu lay yóbbu moom nga tànn pour di ci sant woote ak cant wax ne képp koo xamante ne sama mbégte sa mbégte la na nga ñëw sant le ma ci yàlla mooy wane ni rafetoon nga njortu wóolu woon nga borom bi nga xamante ni moom moom moom moom rek moo mën a aaraate moo mën a sàmm ñëpp kulte go xamanteni ni nii gu la ba tax nga ñemee soobu ci liggéey bi nga xamanteni nii bi mo duun te bari ba ñun ñepp ñu nekk ci di ci sax saaxi te doonuñ ci dara bi nga xamanteni nak mo ci mom la ci soñ ñi nga xamanteni war la leen soñ ak di tatan ci nga xamanteni ni ñooy kilifa yi nga xamanteni ni ñoo ñu war a sonn na ci lolu moy gëm yalla gi nga xamanteni yalla mom la sëñ bi gëmon yalla ak doyloo gi mu ko doyloo ak kennal gi mu ko an kennal ak fit bi mu àndal ak ngor gi mu àndal ba dem ba dellu si ba indaale ñu xéwal yëpp ku ne xam na ni nag wàcc sa jaboot ñu taq la ak ñoom génneel seen réew di la bundu xatal di la sonal lépp loo xamante ni yaakaar nañ ko ci luy déranger doomu adama wala mu koy indil ay jafe-jafe rek ñu la koy def nga muñ rek wóolu yàlla borom bi subhanahu wa taala rek wa sixtu bi rabbil arsi dil juudi wal ma maal Moustapha wallaahu lii muxlidun saf yi ku dégg bayit boobu xam li nga xamante ne moom la ci sëñ bi wax xëy na sax xam gi dana jafe waaye nga taataan ci ci li nga xamante ne moom moo ci mën a sa dégg-dégg fa la mën a yem li nga xam ne sëñ bi yàlla rek la dëgërloo woon yonte bi sallallahu taala alayhi wa sallam dong la defoon wasilaam moom la defoon yéegukaayam ci moom ba tax lii lépp mu am ko kon nag nañ ci gën a góorgóorlu fonk jaamu yàlla julli juróom fonk liggéey fonk ak mbokk fonk dimbalante te yàlla tax loolu rek moo mën a tax ñi nga xamante ni euh, moom laa bëggoon ñu ko am ñu soññee ko rek ñu ko soññee suñu diggante ak suñu taalibe euh, jërëjëf sëriñ Basirou euh, soññe bi am na solo gàtt na waaye am na solo njariñ a ngi ci ndax sooy xool wax dëgg yàlla jaamu yàlla ga tax nuy wax lislaam ku ci eh, moy rek da nga ca nek sax ca da nga nek nga ca jamm yalla ga ñu ñew ci benen cër bi eh, bi nga xam suñu borom jox na la ko muy nga nek ci walu aduna au conseil des collectivités territoriales eh, nek kenn ka nga xam ne dara ñorul ngir liggéeyal sa mam khadim rasul jamono yi nu genn nu gis ne sa wax bariwul sax waye sortie nga def benn sortie ba nga xam ni dang ko def ci njitum rew mi ngir lan li muy def biir Touba nga nekk aussi ku ñàkk ki ñaan euh, sant ko ci gërëm ko ci reconnaître ko euh, tey sëñ bi su lool soo ñu ci doon dikkalaat tey jii lan nga nu ci mën a leeral. loolu moom sëñ Bara lu simple la parce que ñun ñi nga xamante ne ñooy taalibe sëñ Touba yi ku ci nekk am nga yéene ci dëkkub sëñ Touba bi am nga yéene ci sëriñ bi ba lépp loo xamante nii luy xeeti teraanga la wala luy xeeti jumtuwaay la. loo xamante ne ni dana yéwénal dëkkinu ñi nga xamante ne ñoo ñëw dëkk ak Serigne Touba soo ko mënoon yow dong da nga ko def bu amee ne koo xamante ni yàlla dafa dogal muy le président de la république yàlla dimbale ko mu am les moyens après am xol ak pasteefu jéem dox jëm ci loolu di yéwénal dëkku Serigne Touba bi yéwénal gi nag mooy yéwénal dëkkinu ñi nga xamante ni ñoo fi ñëw fekk Serigne Touba moo xam ci wàllu ndox la moo xam ci wàllu courant la moo xam ci wàllu urban urbanisation la moo xam ci wàllu kaaraange la yooyu yëpp ku ci dox jëm dafa mel ni murid yëpp nga ko defal ndax ñun ñëpp ku ci nekk ci ñun rek murid bu nekk mën ngaa wéet waat ne lii nga xamante ne moom la ñuy defal sëñ Tuubaa bu doon yow dong mën nga ko bu dee li ngay wax sëñ Tuubaa dëgg ci yow di ko defal sa bopp bu amee ku ko def nag yow danga koy da ngay da ngay am droit defaale na ko te mën nga ko sant mën nga koo ñaanal ci sëñ Tuubaa loolu rek la jubluwuñ ci lenn jubluwuñ ci wax kenn loo xamante ne lu ko neex la wala ñuy ñuy dagu kenn waaye dañoo xam ne lu waay defal sëñ Touba ñun ñii buñ ko mënoon ñun ñoo koy defal sëñ Touba nag kenn mënu koo defal dara waaye ay mbiram yàlla mën na koo rafetal jaar la ko ci yow ndaxte bu dee aw yoon wi fi jëm jëm si la boo xamante ne da nga fexe ba mucc ayib yàlla jaar la ko ci yow loolu sëñ Touba ñaanoon na ko ci Matlabul Fawzayni bu dee kaaraange la ñaanoon na ko fi bu dee ay bâtiment la bu dee ay tabax la lu mu mën a doon muy central lépp sëñ Touba ñaanoon na ko te sëñ Touba lu mu ñaan fekk na yàlla may na ko ba noppi kon nag comme jaar ci yow da ngay sant yàlla sant yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam sant jëmm ji ko jaar la ci yow gis ne nag ki nga xamante ne moom moo moom la yooyu yëpp jaar ci moom ndax moom moo décidé dogal ndax moom moo moo am matuwaay yooyu ba pare nag léegi service am yëpp mu mobiliser na pour loolu am moom mooy président Macky loolu sax ñu def ko ci waaye jéemuñ ci jubluwuñ ci lenn loolu rek lañ ci jublu ndax man bu ma ko mënoon man dinaa ko def yow mi boo ko mënoon di ko def kon nag ku ko def rek day mel ni ñun la ko defal kon nag ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm di ko wax it nag tamit nag loo sant sant waay su amee loo xamante ni yaakaar nga ne buñ ko buñ ko amélioré mu gën nga fàttali ko na ñuy bañ a xaarati ba màggal gi jub si une semaine wala un mois après ñuy ñëw di préparer naan dañuy defar ndox ak dañuy defar courant dañuy defar lii chef de service yeeg directeur yi communication bi ñuy def di ñëw di ko wax ci màggal gi kenn xalaatul woon ne tey jii courant bi problème yi mu am dina ko am kenn xalaatul woon ne ndox mi problème yi mu am dina ko am te loolu bu amee day naqari nit ñi mm-hmm. te kat Cheikh Saliou mbakke yàlla na yàlla yokk leen te station ji barkeem waxoon na ne mm-hmm. man de dama nekk jëruñu taalibe yi mm-hmm. jëruñu murid yi waaye moom ma leen képp koo ci xamante ne am na lu ko naqari ba mu jógal di ko fajal boppam du ma ci du ma dara bu amee nag koo xamante ne daa ñëw tàggu ma pour faj mbir dinaa ko wax ne ko na muñ te yàlla tax ak yont bi jëme sëñ Tuubaa moo tax nag chef de service yi ak directeurs yi nañu góorgóorlu ba engagement yi jël ak communication bi ñuy def ci màggal gi ñu fexe fexe fexe fexe fexe fexe ba teel cee jóg bañ a xaar ba mu ne kët na jonn kët na jonn moom problème rek lay indi kon nañ ci góorgóorlu jéem a jël engagement yi jéem ko respecté ba pare jéem jéem a doxal mbir yi balaa balaa heure bi jot asalaam euh, sëñ bi jërëjëf xanaa kàddu yi tàggatoo rek <laughs> ñaanal waaw tàggoo de moom sant yàlla rek la ñuy def ak jul ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di rafetlu seen ñëw gi ngeen ñëw fii li itamit jéego yi ngeen ñëw ba dox ko fii ak li nga xamante ne moom ngeen def lépp li ngeen ci jublu rek mooy bay seen wàll ci waar wi waaw kon kon nag yal na leen yàlla defal tawféex ci defal ñu ko te ñaan yi itamit nag rek mbir yi gën a yéwén lépp lu ñu fi wax lu defar rek lañ ci jublu lu baax rek lañ ci jublu sëñ Tuubaa ay mbiram moo ko yoral boppam moo koy saytu boppam moo koy aaral boppam képp koo xamante ne dox nga jëm ci yàlla dala ciy fay ku ko gàllankoor mën nga caa jox joxe doxe am ay gàllankoor ba ilaa yu diine yàlla ñu yàlla defal jàmm te échéance yi nga xamante ne mooy moom lañ jublu moo xam ci wàllu politique la moo xam ci wàllu économie la moo xam lu mu mënti doon rek yàlla na ko yàlla dalal def ci jàmm ba Sénégal gépp tiire ci jàmm joo xamante ne nii kenn mënta xam fan lay yem di ñaanal itamit nag ki nga xamante ne moo fi nekkal sëñ waa muy Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké nga xamante ne nii ah, ku ne gis na ab taxawaayam ak pasteefam di ko sant di ko ñaanal ci goutte yi nga xamante ne génne na ci senegal ci at yi ñu jàll yëpp xëy ku nekk ku fàttaleku di nga xam ne Sénégal duggoon na ci goutte bu dul benn du ñaare moom rek moo ci génne maamam yàlla ko yàlla doolu lay gën a jàppale ak maamam ak ki nga xamante ne moom la fi nekkal muy seen Touba Mbacké ba waxuma la Sénégal ñuy dugg ci goutte mu ñu ciy génne sax waaye Sénégal ba ñu tabee ci goutte wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh